ca dëgg-dëgg ñun ñooy ñooña ah ñooy ñooña ñun daal ñooy ñooña muy ëllul ay naa yëti ñi nga xam ni yàlla moo leen bëggal boppam jël leen taf leen ci boppam lu nu mel neex na ko lu nu wax neex na ko lu nu def neex bi waaw. bis bu tedd bii. di ngeen ji bis. hein. ñu ñëw tey jii nekk fekk ñu gën ci lépp. tey ñetti shérif ñoo fi ñëw dara ay xadaral rasul yonent bi teew na mooy ñu am na ñoo xam ne moo leen fi jiitu lu ci dara yonent bi mu jiitu la ci barab nga jiitu ko fépp gan la te moom fu muy dem saxaabaam ya dem du fu mu dem nag cheikh dem waaye bari na jotaay yu mu dem cheikh da ko fay fekk te jotaay yu xadara ci lay bokk li ko firndeel sëtu bu tedd bii yegg si ñëw jiite ñu kee ci bis bi nga xam ni waxuma la ñoom waaye benn benn ci ñun suñu gisantee am na ci ñoo xam soo leen gisee sa yaram araam sa moo tax ñuy wax ni bisu àjjuma ak altine soo gisee benn benn taalibe cheikh yi na ngeen ñu fashat bi ak ñu ay gis naa la su ko seedee bi seen yaram xaraam loolu yonent bi yàlla defaroon mu nekk ci jëmmam nee ko mu seedeel nañu seedeel ni képp ku gisoon yonent bi te sopp ko da ngay dem àjjana te mhm. eh? bi yonent bi di dem loolu bokk ci turaasu Cheikh na Ahmed Tijani eh? Cheikh nag bi muy dem du lu nuy jëlaat di ko defaat ci jëmmu keneen mu far ko ñaan yàlla def ko mu di am dog mu benn benn yi di zikkar mhm. nga xam ni soo ko zikkaree ci ñaari bis yooyu ku la gis ci bis boobu wala nga gis ko su la jëppiwu rek yaram yaramam daan fataa ba taxoon bi daan toog yenn bis yi ak heure yoo xam ne marché bi day xumb rek muy dugg ci marché bi di dugg ci couloir yi di wër la mu ca jubloon ñu bari xamuñ ko ku ko gis te jëppiloo ko rek waaw waaw ko yow moom lu jëppi kenn xam nga saa nga gis ku baax te jëppi ko tax mais ku baax du jëppi kenn. yow soo ko gisee am na ci ñoo xam ni gëmuñ ko woon sax ñu soppoon la. cofeel googu mujj sax ñu tudd. ba yëfee naan waaw xalaat kii mooy yonent maa ngi yaakaar naa suul yàqulu taama wa yamshi fil aswaaq li muy dox ci marché bi la lay fekk loolu la. ba mu ko doon loo yesee da topp caa génn bëccëg. ba tax ñu ko bisub keroog ku la gis. tàbbi aljana ku mu gis tàbbi nag bàyyi ko def ko ay dox yoo xam ni am na benn benn yu koy zikkal seen yaram xaraam safar. waaw akbar. su ko defee yàlla may ñu bis boobu nag muy bis bi nga xam ne mooy bisu àjjuma. ñu ñëw fii ci weeru tedd bi nga xam mooy ngeen di weer ngeen ci bis tase feeg ngeen ñi mbindeef nekk sa dëkk kon loolu ku ko xeeb xamoo ne rawatee nag bis bii di yow ma euh, sëydul ayaami mais di bisu àdduna bi mujj ci koor nga xam ne ci rek kenn xamul lu mu toll su ko defee kon loolu ñu ci sant yàlla di julli ci soppeem ba. sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ku dul moom yàlla xoolu la yonent bi rek lay xool bi wax na ko nee na ko yow moom mayuma la nga tooñ yàlla su ko yonent bi tooñoon daf koy duba ah? وتملئن شركتك ليحبطن عملك waaye ku dul yonent bi soo ko tooñul mu duma la. mu duma la. ah loolu. yàlla. ah ku dul yonent bi. ah soo ko tooñul da lay você está tax tooñ yàlla yëgoon ñu maqaam la. ah mooy toujours yaa ngi saxaar ak uloo ji yëppoo. wuyul banaa la. gisoo nit laaxira ku la gën a tooñ yàlla moo lay ëpp yërmande yàlla. ah. ah. yaa ngi tënk nit ñi de. imaamul Buseyri ko nee na laaxira ku la gën a tooñ yàlla. wax loolu imaam toujours yow la alla rahmata rabbi. moom la ñu wax léegi fii. xëy na yàq si mu ala xasabi isyaani قد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبغي ولا يذر maam Adama bi mu tooñee yàlla ci biir àjjal yàlla daf ko fa bind sampal ko fa garab yëpp lépp loo gis yëguloo ni fii ci koy lekk ma ngay àjjal ah. mu ne ko nag mosal ci garab yi yëpp mais lu neex lu nekk lu naqaree ci wetam ba min kulli shay'in xalaqna zawjayn yàlla bind fa benn garab am na ñu ni garga la neexul mu ni ko bii moom du ko laal parce que neexul mu ni ko kii bu ko laal bëgguma loolu la nekk fa luy xéewal mu am ko waaye yëguloo ni képp nekk ci xéewal soo amul ku la wéttali rek xéewal ko du neex mu yàgg fa trop bi mu demee nag ba yëg ni moom daal lii woo bëggoon naa ko koy ci la yàlla bindee sunu maam Hawa mais gis nga toujours sa àndandoo moo lay def loolu lay dugal. bi suñuy doxantu di witti ci garab di lekk mais suñu jubee foofu rek aadama dévié Hawa ndekki ni mu koy seet nit toujours li muy def ki muy nekkal moo koy gën a bàyyi xel. ni ko lu tax fu ñu jubee garab gi rek nga wëlbati ko lu tax garab gi neexul te yàlla dafa ne bu ko laal mënu nga ko mos mënu ko mos mu nga ko laal. ah nga. ko nox loolu nag. ñu ne loolu ne loolu ba aadama jéem a tënk waaye du tënk. awaani ko kaw soo fàqaloon fàqal na. yow yàlla li mu la tere mooy mos bi mais tere wu la fàq bi fàqal ma man te yow la tere mos mais tere wu ma man moo ko ko mu ne ko xollil ma ko. ah wasa mu mos ko. dañ naa ñu mos ñu xew xew. léegi ñii. waaw yàlla mere leen. moom laa la ni gis nga nitu yàlla su tooñul yàlla force su aadama tooñ yàlla yàlla soo ko bañ ca nekkee ba aadama ñu ko yàlla jéggal na lu yàlla ñu teg mu ko wax yàlla doo ma jéggal sa barke asmaullahil yàlla faale mu toog ba bis mu ne ko jéggal ma ci barke Muhammad xam nga koo jéppi suy wax ak yow doo bëgg a wax ak moom mais am na lu muy wax wala lu muy def bi wax moom da wax ak moom ci njëppite yàlla ni ko foo xamee kooku. Eh, ah, gis ci àjjana lépp lu ne bépp lépp am na bu ci nekk laa ilaha illallah mu ngi تتسوفهم تزو محمد رسول الله تحنا لا إله إلا الله يولا وإن محمد رسول الله بيوم بيحوم كلم يفاضي كلم يكوكوكو نغتدو لغل جيني ساكولي بتي يو أك حواني حبان ما ينف لملي جيني في يوبولي تي اتبو حمني بني جورو باري باري باري أمزين ميكو جانوري ميلوم آدمان ñooña nag ñëppay tooñ ma jéggal leen ci sa njéggalu gii amul ko antal lëtt yi lammaa tawassala aadamun bika min zallatin bika faaza wa huwa abaak yaay ki nga xam ne ba aadama jommee ba jaaxle ba tudd la te la ko baale te aadama sa baay la الله رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإنسان من قطعنا يا الله نطلنا الله يا الله دي شعبين يرمني نطلنا أمرنا مباح غير باك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من حمي بلا كو خام بسبين كان كان مو كو خام تدمو الله سيدكي yàlla danaan jibril fexeel bu bu mu jóg ci bàmmeelam te fekku la nga taxaw te sooy dem yóbbaaleen mikaayil asrafil ma dem ak azrail yéen ñeent su jógee yow yaay xaritam nuyu ko tàpp tàppal gannaaw mikaayil su jibril defee loolu fóonal lex bi ngeen ngeen indi ko ci pàng ba góob ngeen ko mu liggéey lépp sotti moom ah, mooy dimbali jàmm ni ñu yegsee ci bàmmeelam toog Jibril ni ko yaa Rasulallah um bi isbir naa yow yonent yàlla bi jógal ci ndigalu yàlla mu wax wax yonent bi ni teg mais kaay ni ko xaaral yaa Habiballah yow soppe yàlla bi jógal bi isbir naa penc dafa taxaw boobu nit ñi dekkil mi kenn ñemewul a jóg ndax ku jóg xam ne ni am na malaaka yu taxaw sa sa buntu bàmmeel dina xaar Azraïl bi ko Jibril nee na ne mu ni moom bu dem parce que rus na janoog yonent bi ndax ñoom ñaar ba ñuy mujj ci ci àdduna sukuraat ba na mu meloon te te na sukuraat ba meloon ñu ñoo ko yóbbee yonent bi masalaat Jibril ñu ko laajal moom ni eh, Azraïl waxtaanu dee mu mu toll mu misaal ko ko ni ko cent degré la mu ne ko ku nekk ko mos mu ne ko waaw mu ne ko gisoo ñuy dee coono yi ñuy def ak li ñuy ñëw mu ne te sama yu yëpp a ko yor mu ne ku ci mu ne ku ci nekk ci ñoom jël naa ci moom quatre-vingt-dix-neuf bàyyi fi bi ba ca kanam ba ca kanam boobu junj la Azraïl mu ne moom du dem Mikaïl wax jibril wax yonent bi ni tekk rek asraf ni ko yaa shafi al muslimin yow mii ràmm bàkkaarkat yi xom bi si la yonent bi ni seen benn fekk leen ñu taxaw jibril def ni ko yàlla sant américain yonent bi ni leen bégal leen ma ñu ko moo ñu tax a ñëw mu ñu ko àjjana mu ni waaw yàllaan ko tëjlu kenn du ubbi te se ko mu ni waxuma la bégal leen ko laa wax mu wax ko Jibril xamantu lu ko Mikaayil ni ko wér a lay xaar mu ne ko waxuma lu lay bégal mu ne ko nan la yàlla nar a jëflanteeg sama xeet wi tey loolu Jibril xamu ci dara Mikaayil xamu ci dara ñu ni tekk mu xam ne nii xamu ci dara rek mu baax rek donc bu bàng la di seet xeetam la ñoom rek lay wër di ci gis xàmmee na la ñu ni loolu mu mën a nekkee ñu ni tey daayira bi wala ASC bi su nekkee ci kër gi di réunion wala parti bi borom kër gi su duggee ci kër gi ku bokk ci doomam xàmmee na la ak ku ci bokkul doonte ñu jëm ci bari na noonu la yorenti bi di xàmmee ku bokk ci xel mm-hmm. parce que dafa am leer goo xam ne day circuler ci seen jëy yi ñu bind ci laa ilaha illallah ñoom duñ ko gis mais yonente kuñ ci xool rek ni la hey yow mas ngaa def ci man salaatu salaam. waaw mu am sa salaatu salaam yi nga daan def ci man fii laa ko gis. <laughs> demal demal. Eh, di nga taseel malaaka waaye koo ci taseel woon ko ko. nga xaar ma maa ngi ñëw. mu tax Maodo nii. li li ci ki waral li jënd mooy fexe tase yow yonent bi bis bi. Mm-hmm. تدرى دولا دولي دولا كومي وار دولا كومي تدرى دولا كومي لولو دف تي موم صلاة الله ما تعلمي كده فوتي موم صلاة موم قوانا ستوسك مطلب يكون يلقاه غدا ينا الوجلا هذا الكسير أتى للجميع الله بدون تسعد موم مدخلين سلسلة سباسي بيرن توك أبدي كم خوف ليك نيك داونو بنت

yàlla da koy dencaat ci sa jëmm ci amul tiroir bu mu préparé pour denc ko fa ba mu des salaatu ala loolu moo xajul ci jëmm nit soo defee ab salaatu rek soo di allahuma ala allahuma salli ala rek am na malaaka bu jël départ soo tudd yonent bi mu départ soo ci boolee ñooñam yeeg bi mu yet si salaatu bu suy daanu da koy këf destination bu fenn furul xabrul rasul sallallahu alayhi wa sallam su yegg si nuyu ko ne ko sa borom a ngi nuyu li ko gën a neex mooy nga ne ko sa borom yàlla nee na na xam nga diw doomu diw ak diw mu ne ko bu baax su dee kon bisu tey ji bisu àjjuma ak bisu altine mu ne ko léegi rek maa ngi gis mi ngi toog gën ak nangam ak nangam di def ci man salaatu malaaka mu ne ko salaatu boobu laa indi yonent bi ne ko tegal fii مرحبا بهذه الصلاة وتلبي من دوسي ابو حمصات وبدا تلبي يعني ندق انا يا ابو صوت يقول لنا زوما تاي يا من يقول يلا يقولوني كبوكو تي خيتام مي مولا تي بوله du yàlla yàlla moo la bind mais yonent bi la ci boole bu yàlla bindee arwaax yëpp wékkaleen ci àllamul arwaax kenn bu yàlla bindee ba pare daf ko ni pare naa la ma bëggoon a bind nit la yàlla mujjee bind ni ko nag yow da ngay doon malaaka da ngay bokk ci kooru malaaka yi wala da ngay dem àjjana léegi xaar wala da ngay jo dellu doon leer ga nga nekkoon xam nga nabi yun kaan xam nal kaw ni muuran waaw mun yàlla ko al insaan yoon lu tax mun ko ngir ëllëg ñu ruusee ma leen ñii li ngeen sant mënuñ ci dara naaruñ ci dara mu ne ko nit ñi nag li ma leen programmé mooy ay giir inna ja'alnaakum xabaa shu'uban wa qabaa'ila giir bu nekk nag dafa am yonent bu koy diriger yonent yooyu nag tànn naa leen cent vingt quatre mille la ñuy doon léegi yow soo ci bokkee foog nga doon ci yonent yooyu waaw léegi nag da ngay a dem wala da bàyyi ñaar ak ñett yonent bi nga essayé ko xool bu ñu tek ni ko bàyyi moo mujjee léew bi mujjee léew na lu ma bëgg comme danga ne def ay jiir dama bëgg nga may ma man ma dem alamul arwaax tànn ñoo xam ne ñooy bokk ci sama xeet mu dugg alamul arwaax fekk rox yëpp muy wér muy xool teg baaraamam la ci ruux ni ruux bii na bokk ci sama teg ñu ni ruux bu mu ci teg rek baaraamam ba rek mu am leer bu cay kilidati di def di def ba kii ni ko yàlla ba xam su ëmbee ba malaaka di ñëw di jël benn ruux pour dugal ko ci ëmb boobu ruux bu mu gis muy clignoté dafa xam ne du ko réservé di waru ko yóbbu ba xeet yëpp jeex moom mu ñëw kon ñun ñii suñu arwaax yëpp moom moo ko laaloon moo ñu boole ci kenn mënu koo fay yonent bu fi bu mu mën bala ñoo d'accord sax yonent da ngay koy gëm si ngeen ni moom mooy sa chef mooy sa sang bi mu wàccee imam Adama alayhi salaam da ko wan arash ci kaw arash ba mu gis si bind laa ilaha illa allah ah, mais avant muy bind dara nag avant muy bind dara dara dara dara boo fekkee leer bi rek moo fa nekk leeru yonent bi rek nee na yàlla bi mu giidee aadama gindi ah. ko mooy bi muy laata bind leen arash a nekk fa leeru sayyiduna Muhammad doo fa nekkoon. wa innahu iz arada Allahu nashaatana wa abana min nuurihi nuuran bil aalamiin moom la Cheikhul Hadji Malick saxal yaxal kurba ni kaay ma xamal la bi dara newu fi xam ni yàlla kese fi nekk boobu benn mbindeef lenn lenn amul arsh amul dara amul yàlla kese bëgg bind moom yàlla moom daal moom daa fekk woon yëf ya waaw xam nga am ah. dafa am ay nitu yàlla yoo xam ni su ni ma la koy waxee pour mu euh, nga mën ko dégg ay doomu yonent bi lan ah waaw yonent bi moo leen ëmb gisoo yenn saa yi kenn wax ci ñoom ci xaal boobu ca fekk boobu ba mu nekk ci biir yonent bi la nekk ay leeram ca biir ni aadama bi muy laata sujjóot man mii def naa nàngam ak nàngam dafa am ñu yonent bi tànn Cheikh Hadji Malick ci la bokk ah. ah moom dafa bokk ci yëf waaw ñooñu par téeméeri la kenn di ñëw eh. moo taxoon mu ni inna allaha yabasu ala hadihi ummati ala rësi kulli miati sanatin man yu jaddidu diinaa hmm. dul fi fekkante ñooñu dañu ñëw par téeméeri at kenn kenn kenn su ko defee kon looloo tax moom mu xam lu mu jàngul Maodo xam nga xam-xam ak njàng du benn nit nit dina jàng te du xam dara est-ce que nit xam dara te jàngul xam nga moom bi muy laata ñëw fekk na xam na yi muy xam yëpp

ويا من عنده بدعه والإحسان والجود فرض على الابن شكر الوالدين ومولاي والد البر يا أستاذ صنديد xam nga moom lépp mu yéeme ba ñamu nekkandoloon jamono am ñu ko ma ndax jaaxle parce que ku jaaxle nag am droit laaj li ngay war nga ko laaj waroo ko laaj mais droit yi moom am na ñu ni ko a ah, anta mursalu ndax yow doo yonent moom Cheikh El Hadj Malick waaw mu ni suma mursal waxoon na ko bu yàgg <coughs> te lu lu yonent bi def ànd naa ko ak moom def ko te lu ma def ak moom ànd naa ko yéen def ko. maman. waaw wàllu ka. المنيع إلى ارتياب من مولى هو الشيخ الدليل إلى الجنان غير سباني ما سباني ما سباني مولى سباني ما سباني ما سباني Mawdo rek ay Mawdo gisoo gisoo Mawdo ay Cheikh Abdoulaye Malick gisoo Maodo li mu rawee mbënee rawee mbënee ñaar ñëpp sëriñ si mooy gënul ay doomam bi muy tibb la ay doomam tibb ah wallahi gënu leen xoolal xam nga tey li la koy xamal moom sax moo ko bind dafa am ay doomam am ay saxaabaam. ma Maodo. gisoo El Hadj Mansour li mu wax. gilaasu wa saxaabuhu. amakaan. tawsiifihi wa hubbi kulli makaan. jullaasuhu mooy ay doomam moo tax jullaasuhu juróomi xaraf la mooy juróomi doomam yi eh, eh, eh, dégg déggal loolu wax man ka déglu naa lu ne waaye bii moom nga di ene mooy yoon jullaasuhu mooy juróomi doom yi moo tax juróomi xaraf la waaw mooy jullaasu te gis nga ñooñu moom la Maodo di junj nii xam nga mu daa ñoom la nekkaloon ca azal ba tax mu lu daamaanaa bu dóoru na yiiraatu moo tax yow ku la ci yàlla booleel su lay wax mayam da ngay defe ni kii kese la ñoom lay junj naan lu daamaanaa wala lu daam ki ngay naanal ne naanal ndal teel da ngeen di topp moo tax kenn jullaa suufoo te jullaa suufoo mooy lu daamaanaa saxaaba woon ak ñoom ñoom ay saxaaba yi nag moom taalibeem yi mu affecté gisoo mosul la jël benn doomam affecte ko ci beneen gox yëpp da leen téye mais affecté saxaaba yi. noo ko an tawfiq mu ne nag pour nga xam Maodo mënul a nekk noppal ci sa bopp. léegi la lay la ngay dalalee sa xel xoolal ay doomam ak ay saxaaba. nga ne ko anañu mu ne ñoo ak naw ka doy nanu la am taw si fii ci nga melal Maodo anañu mu ne waxumoo bi kulli makaari dégg lii dégg lii wax de. amal ah, taw. loolu kon xam nga li nga wax sànq. këf kii ngi teg këf kii. julla suuf li nga wax sànq ni. Eh, kon doom yi doomam yi. fa ñu tibbale fa mu tibbale ñu tibbee. mooy nu daa maanaa bokkoon ñoo bokkoon. waaw li eh, wax sax ci wàllu mursal xam nga ne mag ñi waliyu musalla ci yéen ñii xaw ma ñan waaye yéen ñii waliyu musalla ci ñeen yëf yaa ngi bëgg a tërëm ci kon tam foofu mën nañ ci déggee ni kon ndekete ñi ko darul ñëpp ëpp na la ah. eh, sëriñ laa yug fi yàlla naka cheikhun xayrahu xayrahu abadan in kaana yumkinu يعقبنا يعني وصلنا كيس الحج مالك يعني لولا الشيخ احمد تجاني شريف رضي الله تعالى عنه كابتن كل بيكو تكو تي طريقه عاد مو داكو كابتن كابتن moom dëkk capté amoon na. waaw moom dañ ko capté moom wuraat la Cheikh ku bëggal bopp wuraat la. عاملتهم بسياسات بأن تبعوا maam Abdou Xaw ni ko yow saxaaba ya jëflante nga ak ñoom ci ci politique ci siyaasa doxalin boo xam ni ñee da nga dëgëralante ñoom ñii nga nooyalante ñoom ñi nga far rek defar leen tarbiyatul himmati ñee tarbiyatul xaal bi siyaasati bi kan tafaw moo tax ñu jëriñu ci yow ووصلوا للعلي مصدر لقاء وصل te ñoom ñëpp bi nga jëflanteeg ñoom fexe nga leen ba branché leen ci yàlla ni nga jëlee sa chargeur bi branché ko ci prise bi fexe nga ku ci nekk samp nga ko ci yàlla. fa sawfa tash'uru ba'da dawqi am li nga mos. ah moo tax mu ne yéegoo nga mos am sooy nit dootoo ko mosaat. parce que dootu la saf dara. waaye Maodo ku ko mos bëgg koo mosaat parce doo màndi. mu ni nag fa saw fa tashuru di nga yëg li nga xam baax na zawqi gannaaw ba nga mosee ni an li nga mos ni li nga mos أحلى وأصفى أخي من سكر وعسل suukar su neexul kenn mësu ko dégg lem bu neexul kenn mësu ko dégg mën nga dégg leneen ni muy neexul waaye nee na soo mosee Maodo di nga mos mos nga lu gën a neex suukar ak lem نفسك يا شيخي فسيرى يوم مولو daga fëgg da danga da nga yulli sa bopp leeral sa bopp rafetal sa bopp sellal sa bopp ba xam kenn dootul gis سيرا نكوريكو خم دي ماما شاء فلوخال يو نكو خم دي لولا نيخ لو نيخ سو بكام ngay doxal déedéet yow la fi sa sa tàndeem ba nekkee woon muy Sayyiduna Muhammad sallallahu yow loolu nga ñëw pour continuer ko al Mansour yaa xayra mafzain yow woy juru Mansour li tax mu ne lu tax waxul ne yeneen doom yi mu tëbëri Mansour suuf parce que loolu suuf si nga xam ne ci lañ ko bind la ca desoon dañu bindee Mansour <laughs> xam nga nit ko nekk fii sa bàmmeel fi mu nekk suuf soo gënul te bu ko guddaay bi lépp bind la ci. boo tax soo génnee àdduna falal lay delloo. léegi nag moom suuf soo ñu bindee Maodo dafa des moo tax la ca desoon bariwul moo tax moom suuf tuuti woon. mu ne ko nag suuf soosu yow mi nga xam ni yaay cosaanal Mansour yaa wàlli la Mansour yow miy suuf sañ la bindee ba mu desee lu ci bindi Mansour yow ngën di wéeruwaay côté bi soxna Sow bi mu génnee àdduna moom lañ ko sësal. Allahu akbar. xalima abil abbaasi. xul nii yu dayati. yow mi nga xam ne yaay miin daanu yaay miin daanu yaay liggéeyal abul abbas. Cheikh na Ahmad Tijaan. wala capté liggéey loola. xus li yu dayati jàppal sama loxo. parce que xam na ne ku jàpp ku ku mu jàpp sa loxo. teg la ci loxo rasulullah moom na maam xalifa ña sax ni ko bi cheikh wootee kenn mënu ko wuj ku ne bëgg nga wuj ji mais mënoo yenn saa bëgg lu mënul man mi waaye yow rek mën a wuj ji parce que fa cheikh nekk ku dul yow xamalu xamalu la ko moo tax tànk mësuta faas man daana bil xut bi maam xalifa ña si bokk xut bil awliyaa i moom it fa innaa naraahu xayra faj faj faj faaj. <laughs> ko bi Cheikh woowu yu wëli yi kaay leen pour yow xamoo fi mu ne. ah tax bi nga demee. mu yëkkati lépp koo nga demee mu yëkkati lépp koo jox la ko. Cheikh mooy ki nga xam ne soo ko deful waaye sopp nga ko sa yaram araam sax kooku moom rek la yonent bi sax yàlla may ko loolu moom da ngay da nga koy bëgg di def la bu daan def la xar kaanu fi lu sëy sóotul la yàlla njëkkee moom nga sopp ko rek ndax mooy seddal xolu yonent yi. dëgg la de yàlla su amoon xol rek sax doy na jëf. yàlla su amoon xol yonent yi bee koy seet. waaye xolu yonent yi nag cheikh a koy seet. benn nit yàlla dafa dugg xëwa gis yonent bi toog Cheikh Abdul Qadir Jilaani sultaanul awliyaa toog ci wetu loolu jaaxal ko waaye ñëw suñu masaan dugg xëwa suñu daan leen dañ koy bind yónnee ko yoon yóbbul ko sëriñam suñu boor ko démb ak te yëpp gisuma Cheikh Ahmad Tijaan Cheikh Abdul Qadir Jilaani laa gis moo dend ak maam ñëpp nee naan Cheikh moo gën a sa suñu mu ne ko tey ci guddi soo ko defaatee soo gisee Cheikh alhamdulilah mais soo gisul da ngay laaj Rasulullah ay na Ahmad Tijaan uhum. ak ba ko loolu é yam tontu de bu mag uhum. uhum. mu gisaat loo Cheikh Abdou Khalid di dem ci wetu maam mu ko Rasulullah ay na Ahmad Tijaan yonent bi mel ni ko def ni waa ji di seen cheikh ci biir mun ko hada huwa dami hada huwa kulli wa kulliyati كل شيوخي فالأول الحكيم منفردا من حاجة الغيب إنما kër si loolu it ku dul moom fekke wu ko ah bala ko si fekk na ko lii may bëgg a wax ni ku dul moom fekke wu ko ak koo mën a doon allahu akbar mbay day dama daj mari yi bokkuñ ci de moo tax ma ni la ñoom Maodo àndul ak ñun fii fa ñu bokkee yàgg la mooy dullaasu mooy dullaasu ba ba kenn firiti ko fi rek Cheikh Ahmad Tidiane yi dafa xettali mbindeef yi bi yàlla bindee mbindeef yëpp dafa taxaw laaj benn laaj te foog ñu tontu ko ku ci nekk bi ñu tontu woon ko ko moo di wa awwalu man labbaa alastu bi rabbikum wax ak googu de yàlla dafa ni alastu bi rabbikum may seen borom wala nekkuma ko parce que yëpp da war a dem jaamu ji te waru leen jaamu ku dul seen borom may seen borom wala nekku moo tax gisoo danga saxaloon yàlla ni ko yaay suñu borom yow la ñu war a jaamu moo tax soo jaamul yàlla su su ko nekkee da lay duma parce que yaa ko waxoon alastu bi rabbikum yàlla di ko laaj ñun fukki at mooy en face rek. li tax kenn tontuwul mooy kenn xamul tontu ba ku dul yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. mais boobu yonent bi nekkul yonent wali yu la. ah yonent nekkul loolu. yonent bu nekk bala nga àgg mënoo doon yonent amul ñun fukki at te diggante bi nga bi nga bi nga nekkagul yonent wala yu ngay doon. ah avant la incha allah. li dégg naa li nga wax léegi. 40 ans te dafay matal. ci ngay soog a doonee yonent. mais bi ko amagul waliyu la. te waliyu cheikh mooy seen chef. tey. ba tax yonent bu nekk cheikh mas na doon sa chef. waxati ko luy dafa continué dama ni garanti kay ku masaroon chef am waxuma la keneen yaa ngi dégg booba nag yonent bi comme nekkagul yonent fa bala moo tontu am ndigalu kilifaam boobu cheikh moo doon kilifa cheikh daal di ñëw nag ñu yonent bi tontu ni ko tontu. wilaaya dox moo tax ñu boobu wilaayaay dox nu bu wa doxul. moo tax waykat ba nii ruuxam tumiddul aarifiina mooy cheikh. maqaamuhu axlaa wa aqnaa sal amin bi baan mu ni mu ni yonent bi tontu laaj bi. et puis ba ko yàlla dalee laaj rek moom xam na tontu bi comme mu amagul ndigalu tontu ba ñuy teg ba ñu ko tontu mu ngi balee nga xam ne ñu tuddee am xam-xam mën na am xam-xam ak jàng bu benn moo tax bi mu ñëwee waxul mënoon na ni ajal alastu alif la yàlla commencé alif baa rek a ciy topp hmm. mu ñëw rek ñu ko balee man daal di ko balee eh boobu la ñëpp wax balee quarante ans yooyu nag nit ñi toogoon kenn tontuwul Cheikh xettali sa su ko deful woon ba tey jii yàllaa ngi laajte rek kenn du tontu. suñ Babacar Sy ko wax waxuma ko parce que leeru ma man xaw ma ko woon mais suñ Babacar Sy moo ne. moo ko kay. 40 la ko yàlla tungoom naan ko waneel sa bopp. mu ne ah. mu ne keroog nag ba Cheikh di wane boppam la mu doon wax ku dul woon sëñ Babacar nee na ku man fekke que ñu ne ko fazer Cheikh doon wax gisoo moo tax xam nga nit ñi yenn say nga gis ku nettali yoo xam ne da ko dégg feneen dem di ko nettali naan maa ko wax moo des ni kullu si yooxi yegul foofu de dafa ni kullu si yooxi rek bàyyi pour keneen ku ko fi bindaat wala sama sëy ne bind ñu xam ne waxu dëgg kullu si yooxi yegul لم لم تتقول موي اخذوا عندي في الغيب من كل شيوخي اخذوا عني في الغيب ما تفسير ما كان يدون في فرق دي واحد كان خم ما يصير سني خم ده نقول كل شيوخي اخذوا عني في الغيب <laughs> sànq bi ko gis xalaat seen baaba lii may wax su ma woon dëgg du ñëw. waaw bu ñëw day bàyyi ba mu année solo. waaw waaw bu ko suyoo seen sëpp bu ma ci kenn génneel kenn axazu mosee nan jàpp nan àndi ci man fil gañ ca xañ fa la yem mu ni kurusio fa xawlul xàq mun farida mun xaddalti xañ gis nga bayit boobu soo koy firi commencé ci kurusio doo xam fooy jëm da ngay réer su mu jëm Thiel ba ngay dem inna rabba naka yàlla mooy rabbu moom. kon que alaahu moo ko tungoo ba mu kawee ni ko wane woon sama. ndax pour kenn ñëw ko. nee bi Cheikh nee cëpp. ci la ni alhamdulilah sant naa yàlla. ba kenn yënguwul kenn waxul dara. donc fi mu ne alhamdulilah waaw. ñu yàlla Cheikh Serigne bii de li ko may lii ah ki yonent bi ko sédd rabbaahu sédd na ko moom nga yàgg rabbaahu sédd na ko mu mu delluwaatal xelam ni alhamdulilah la mu fàgg ko def muy xasida moo tax manaa yi la fi jiitu it moo la saf. waaw dëgg la de façon bu ne wéyee nañ ko ko mu neex lool wéyee nañ ko nan maanaay la maanaay la

vida. ليس يعلم إلا أنت من حاول بالدرب العذبة لا تبتل بنا أبدا إلا المنايل تغني بالمزايا moo tax xasida boobu foofa la ko sëñ Babacar Taalif كل شيء يخيف قول الحق هناك فن من من حضرة البيت حضرة البيت مم تلا ده يتفوت الشيخ شيخ ديوكو دفكو سكرتيرا أنت الذي جاريت أقطاب العلي ورتبا صمت فصبقت عن نكراني من برقر سنان سيدي أحمد التجاني أنت الذي جاريت أقطاب العلي mu ne ko Cheikh yow Anta yaay ki nga xam ne jaaray ta rawante nga ak taabal al qutb yi yàlla masa am yëpp. urtaban fa sabaqta an nukraani. yaa ngi doon rawante ñoom yu xam ne nii du martabantu martaba piir la fa sabaqtu mu ngi jiitu yéen. moo tax man Babacar Sy bi may gisee loolu ca laa daw wéeru ci sa wet gi nga xam ne yë yëkkatiku na xaasha yudaamu mulaazimul arbaani mu ne mu ne xaasha jomb na ci Cheikh yu daal muy gott képp koo xam ne sax da nga ànd ak tëye Cheikh du dàq kenn parce que moom rek mën a setal ku ne xat asawul mawla tariqa shafaat yàllaa ko jagleel tariqa ramb tariqa boo xam ne soo ci bokk ñu mën a da ngay ramb que salaatu boo def salaatu rek ca soxla yow pour lu ñu sauver ak laaxira waaye yeneen salawaat yi yeneen salawaat koy jox yaa koy ràmmee خطنا الصور ما لها طريق شفاعة يكفي السلوك به عن البرهان من كان يدخله ينال بشفاعة من غير عد لا ولا ميزان képp ku dugg ci tariqa bi bokk ci yow am nga safaa boo xam ne ramm koo xam ne waxu am nga benn am nga ñaar am nga ñett dëgg la ma la yàlla na yàlla dog saw dañu toog ñaari Grand Dakar fii ci kër Baye Makhtar Dieng baax ba ñu fàtte am na benn solution ci yéen rek laa wax ne bu ñëwoon keroog li may wax nag Mansour a xaj Malick Sy Maodo ngi toog mu ni ko dafa am sama benn mu géntee gi Cheikh mu téye ci loxo ñuy ko dugalal sa loxo mu dugal ci loxoom mu mel ni teen bu mu dugalee daj mu ko téyel mu téye mu xëcc soo waxee ñëpp xam ko muy def naan juillet jugaat. juillet jugaat. daan def quoi ak yooyu. bu mu ko xëccee mu génn nee yaram baa ngi laxasu ay jaar kenn xam. chantier yi ko man kenn du ma tàgg nekk ci bii melukaan. Hmm. te kooku du jullit. gëmul yàlla. Hmm. waaw segeen kooku mën a am loolu. wax naa ko ko jël nag loolu laa ci doon dara. mooy li may wax mooy yenn saa yi nga dégg ay nit ñuy wax waxu bàyyi di yoo xam ne euh, man li ma gëm te li ma gëm mooy jarul ñu tontu jarul ñu waxal parce que kooy wax rek def nga ko morom te ki nga xam ne doonoo moromam. suy wax waroo ko su ko defee kon jéggalu kàddu gi gudd na sax dañ naroon mos rek daal di kii initial chérif bu baax a baax di bëggee képp ku fi teew yal yàlla subhanahu wa yokk sutura yi yokk jàmm bi salaam wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh